merci beaucoup euh, Mame Seydi merci beaucoup chers internautes de SMTV euh, comme ni ñu koy waxee rek saa su nekk euh, genre événement yu mel nii bu amee Sénégal da ngay jox cër ñi nga xamante nii ñoom ñoo lay suivre saa su ne ci ay xibaar yu wër te wóor ba nga xamante ne ni dala du leen ci daal di rëcci Mame Seydi beneen jàngat bi ñu def ci gouvernement Macky Sall bu bees bi mooy nekk on a trois rentrées nouveaux ñoo xamante ne nii musuñoo nekk ay ministre ci Sénégal bon Modou Diagne Fada par contre nekkoon na ko jamonoy PDS euh, dañ koy tàmbalee ci Thérèse fay donc euh, dafa amee mérite bi ndaxte dafa nekk militante première heure depuis APR bañ koy daal di euh, taxawal ku ci topp moo di Modou Diagne Fada wala donc moom turam ñëpp xam nañ ko moom moo nekk fu mu toll nii njiitalu lépp lu jëm ci wàllum euh, diwlin euh, wante nag dañu gisaat beneen ministre boo xamante ne même bu ko sénégalais yi xamul bokk na aussi ci ñi nga xamante ni dañoo yàgg a topp ki nga xamante ni moom mooy euh, Macky Sall rawatina ni waa APR ñi gën ko xam ci El moom mar Samb ñett ñooñee la ñu jàngat ñoom ñoo daal di bokk ci ministre yu bees yi lu ci mel ni Thérèse fay nekk ministre bu ñu tabb bees ak tamit Modou Diagne Fada ak El Hadji Momar Samb donc am nañ trois rentrées ñu si des ñëpp donc ay ministres yoo xamante ni daan nañ jigal liggéey ki nga xamante ni moom mooy président Macky Sall.